Kéba Kata ko orienté nii ñu ciy ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci waxtaanee lépp loo xamante ni bi dafa jëm ci wàllu pajum cosaan waaye itam di ci waxtaanee lu jëm ci wàllu actualité di xew ci penc mi Cheikh Bara joxe ci gis-gisam ginnaaw bi ma amee ñenn ñoo xam ne dañuy taxaw tembe daal di ne ah faaw nag ki nga xam ni mooy Cheikh Bara yëkkati kàddu ngir ñu soog a xam ana fan la ñuy teg seet tàkk Cheikh Baara Ndiaye boroom def gis ñu ngi lay nuyuwaat. aawuzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahman wala. falaa taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun Euh, maa ngi lay fay Alaaji Saa di nuyu ñu ñu bokkal palaato bi di nuyu képp ko ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyoo bi waa réew mi ak kilifa yi diine yi nekk ci biir réew mi yëpp rawatina Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides euh, di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke ak euh, soxna May Mbacke bintu Cheikh Sidil Muxtaar ak soxna Loota Mbacke mu Seex Sidil Maxtaar ak soxna Xadi Mbàkke mu Seex Sidil Maxtaar ak soxna Ma Awa ak soxna Maskoor ak njaboot ak Sëriñ Sidil Maxtaar gépp waaw di nuyu bu baax tamit soñ soxna Loota mm, mu soxna Loota mu sëñ Sidil Maxtaar di nuyu tamit euh, Jeylaani Fafana ca Koplench Allemagne Koplench nooy wit nooy wit ah, la dëkk euh, ak euh, mm, maa ngi leen di nuyu mm. di nuyu bu baax itam euh, euh, Moulay Hassis Guèye ak maître Mame Adama Guèye ak Cheikh Sidi Mouhamad Diakhaté euh, ak Louis ca Allemagne moom itam mu ngi nekk Berlin. Berlin waaw ak ñoom Njaga bu ambassade Allemagne. Mm. ñoom Lamine sama gaay yooyu yëpp waaw. waaw xanaa na ngay waajalaat tournée Allemagne. <coughs> non non tey damaa dégganteeg ñoom quoi sama xel nekk ci ñoom tey damaa xëy dégganteeg. Eh, dégganteeg waaw waaw waaw. Mm. waaw allah. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis borom Allemagne euh, <coughs> Cheikh Bara macha allah euh, li nga xamante ne bi defe naa ni euh, démb moom mbir yi kii na bërki démb waaw ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax aji Sarr. ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane ko seen jàkkaarloo ba. Hmm. jàkkaarloo ba nekkoon loo xamante ni bii lu Sénégal gi yëpp doon xaar la ñëpp dañ doon wax naan jàkkaarloo dana am ak du am hmm. dana am ak du am léegi nag mujj na am. ba bañ génnee hmm. nag mu mel ni euh, daal mbir mi déception am na ci. parce que nit ñi nañu foogoon ni. mooy am dafa mel ni daal montagne bu wasin ab janax lañu gis. noo jàngatee li nga xamante ni bi moom la ñuy wax jàkkaarloo Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Adji euh, ni mbir yi déroulé. waaw euh, jàkkaarloo Ousmane Sonko ak Adji Sarr yàlla def na am na. Mm-hmm. Euh, donte nag ñu bari xaaroon nañ ko ci benn ñaari côté. mooy mm-hmm. benn côté bi El Hadj Diouf ak Adji ak Sonko bu ñu dajee nan lay demee. Mm-hmm. ak Adji Sarr ak Ousmane Sonko bu dajee nan lay demee. Euh, bari na nag luñ ci mën a jàngate euh, mooy bu njëkk mooy Ousmane sonk c'est la première fois bi dossier bi tàmbalee ba léegi mu dem jëm ci justice te solul koppati sol yéreem xaw yére olof. Mm-hmm. waaw buñ bu dee nag ca boori bawal moom boo solee yenn yenn yenn saaru pàncaan yi mooy pàncaan kilo yu ngand yi dañ naan xuuxal jeeg. xuuxal waaw xuuxal jeeg. Mm-hmm. waaye xam naa euh, El Hadj Diouf mu kii nu mu tuddati Sonko moom keroog li mu soloon. Mm-hmm. loolu mooy xuuxal El Hadj Diouf. xuuxal El Hadj Diouf waaw xuuxal mooy du fi sol ay ay ay xaftaan ak lii boo ma tooñee rek moom waaw moo tax El Hadj bi mu yeggee keroog. Mm-hmm. daa mel ne kuñ sotti glace ndax daa xool xam ne booy bi day xeex. Mm-hmm. mu daal di dal yàlla dogal ñun nuyoon te toog mm, lu njëkk am mooy doyen de sis daf ne woon bu kenn dugal téléphone ci biir euh, bureau procureur ak avocat yeeg Ousmane Sonko ñëpp respecté ko Adji Sarr ñëw respecté wut loolu. jël benn téléphone am joxe jël benn téléphone am nëbb ci biir saag bi. Mm-hmm. ñu toog doyen gars yi ne ko fii téléphone mi ngi fi mu ne ko tijjil sa saak bi ñu tijji gis mu yor téléphone ñu dindi ko. Mm-hmm. daal koy génne saak saal bi loolu rek c'est ça premier problème gi noonu mooy. Euh, lan la woon da doon enregistré dafa bëggoon ñu koy message lan la woon quoi ba ñëpp respecté li loin de si wax moom defu ko. Mm-hmm. dèjà foofu rek euh, première mbir la moo xam ne am na loo ci mën a jàngate. léegi nag li may wax ci gàttal rek mooy dafa bari ñu xëy daat ne Sonko tontuwul Adji Sarr tontuwul. Ah. dañoo def dañoo def euh, maanaam maanaam maanaam euh, confrontation boo xam ne ci ay xoolante la yam déedéet Ousmane Sonko tontu na El Hadj Diouf. Hmm. waaye da koo tontu benn tontu boo xam ne laaj du ci toppaat. Ah. mooy def ko ne danga may saaga ndey di ma saaga bàyyi di saaga sama famille di ma waxe dëmm di ma wax lekkkatu nit. naankatu deret sàcckatu suuf robel booy bandi maanaam lu ëpp fukki baat ak juróom yoo xam ne mooy baat yi gën a ñaaw yi nit dul wax nit yëpp El Hadj da koy dajale di ko wax Sonko mm-hmm. mu ne ko comme ci ñàkk respect nga nekk ci dossier bi loo xam lu ñaaw di ma ko wax mm-hmm. man it du ñàkkal sama bopp respect ba di la tontu wéyalal ñàkk respect gi nga amoon ci man rek ma man man man du ma wax ak yow te loolu c'est normal mm-hmm. mu def ko c'est normal way yoon may na ko sax même bu jotul woon ak El dara mu neex ko mu ne ko man du ma la tontu parce que comme acquisant la ba pare El Hadj Diouf ak Sonko suñu bëggoon a wax loolu mun mënta nekk El Hadj ni mu comporté woo ci dossier bi xanaa moom waroon naa xam ne bis du ñëw mu war a toog ak Sonko nag ñu liggéey hmm. voilà léegi ki ñuy wax Abou Thiali Kane moom itam avocat Adji Sarr la. ñëw na ah. laaj na sonk lu caagi na dafa laaj sonk sonk tontu wu ko mais Sonko tontu na ko. Hmm. mais benn tontu moom itam boo xam ne ab laaj yu ci toppaat. mooy dafa génnee aw kayit xam nga ba dossier bi bees ñu naan du Sonko sonk la. waaw maître Abou Thiali pour mu sarse Sonko daf ko jaraloon mu dem ci journal daal ne man maître Abou Thiali bépp élément preuve buy firndeel na Sonko dafa violé xale bi mhm. mi ngi man mhm. su Sonko ñëwee ci juge bi dinaa yëkkati dossier maanaam mbooleem élément preuve yi ma yore tegal ko juge bi su boobaa Sonko du wax mhm. Sonko ne ko yaa bindoon lii bis nangam mu ne ko waaw mu ne ko la nga waxoon ci kayit wi def ko mooy jëlal élément preuve yi nga xam ne am nga ko pour ñu xam ne man dama violé nga ko fii ci taabalu juge pour du du ma waxati mu jeex dossier bi yam fi. Ah. mu ne ko non mu ne ko soo ko mënul kaay sukk fii nga jéggalu. Hmm. su fekkee mënoo jéggalu nag accepteel ne danga ma doon fenal kon mu ñu jàll ci leneen su fekkee mënoo ko nag tant que indi yi nga waxoon ne da nga koy indi noppi. Hmm. man amul lu may ak yow. Abu dem toog. Hmm. waxatut waxatut. procureur lu ko jiitu Sonko nee woon na procureur man du ma tontu yow du ma la tontoo si. léegi nag nit ñu bari dañoo xamul lan mooy procureur. Ah. procureur mooy. ki nga xam ne état Sénégal moo koy nome waaw maanaam président de la république moo koy nommé di ko fay ci ar argent contribuable lañ koy wax xaw ma. Ah, mooy xaalisu réew mi. ci gafa gi réew mi bi ñu bokk ñun ñëpp. moom ci lañ koy nattal di ko jox. mu jëndi otoom di am jabaram di togg këram di def lépp problème am lan moo tax état di ko fay. mooy moo nekk procureur askan wi yow saa njóogu man bu ma jékki-jékki woon def la benn plainte. procureur mooy ki may aar nekk sama premier avocat bi nga xam ne dina fexe fexe fexe ba noo mën a toll. tooñ gi nga ma tooñ dinaa ci jot. waaye nanga xam ne tamit procureur yow état da ko fay pour mu aar la. Mhm. ba man bu ma ñëwoon xool la neexoo ma rek ma bëgg laa porter plainte fexeel la tëj la procureur dina ma ko xañ ba du ma la mën a fexeel. Mhm. procureur moom nga xam ne nag kon mooy avocat bi njëkk ci Sonko. moom lañ jàpp flagrant deli mu jël di xool PV yi naan lii de war naa mën a taqal Sonko daal di koy def ci biir PV bi. Mhm. lii de war na ko mën a setal daal di koy dindi. kon procureur moom maanaam mi ngi mel ne nga dem am problème dem jël sab avocat bett avocat bi muy wax ak mu muy xool lu lay taqal yow. mu la koy defal kon avocat boobu da ngay teqali kooku moom. Hmm. Sonko dafa wax parquet bi ne leen man mënuma leen a tontu yéen yéen waa waa procureur parce que da ngeen ma doon fexeel. Hmm. pour nu ngeen ma taqale ba ma jàpp leen. kon duma ma leen tontu. dafa mel ni maître El Hadj waaw Abré da koo dàq. <laughs> voilà ba mu ko bettee muy wax ak kaayam dañ dañ ko dàq léegi nag euh, kon Sonko loolu waxoon na ko Amari Amari moom am na ay laajum laaj Adji Sarr. lu hmm. jëm ci ndax yow dañ la doon dañ la da nga ne woon dañ laa sëy ci gannaaw Adji Sarr ne waaw te loolu daa mel ni ko fàtte woon a wax. Hmm. dégg ba muy doo ko commencé daf na woon menace de mort. waaw procureur bi laaj na ko ko mu ne ko mën mën musuma menacé de mort. Hmm. dafa yoroon ñaari fetal ma gis fetal yi tiit. waaw ñu laaj Sonko Sonko ne moom benn fetal la am ci àdduna amul ñaari fetal te musta yor ñaari fetal te musta indi foofu sooyit buy te fetal te néeg ba mu ne fetal dafaa nekkoon ba mu ragal ma ñaari jigéen a nga fa woon moom moom ak Aysata ba laaj leen ay sata ba xam gis na fetal hmm. te laajoon nañ Aysata mu ne gisul fetal kon donc Adji Sarr affaire menace de mort bi dem na mu des euh, procureur bi mu laajee tamit euh, euh, maanaam avocat Sonko yi hmm. naa ci ñëw mu ñëw ku ñu wax Bamba Cissé moo yaakaar naa moo leen jiite hmm. maître Bamba defe naa la tudd su ma juumul maître Bamba waaw moo ñëw daal di taxaw ci kanam Adji Sarr Adji Sarr daf ne moom tontuwul avocat avocat Adji Sonko yi tontu na leen ñetti laaj hmm. ñeenteelu laaj bi la munta tontu hmm. moo tax mu far tëj maanaam ñàkk a tontu ak càng daa bokkut tontu na waaw déglu rek ma wax la te Adji Sarr du ko weddi El Hadj Diouf du ko weddi te journaliste yi may dégg nañ ko laaje nii El Hadj Diouf hmm. maître Bamba dafa njëkk ñëw taxaw ci kanamu El Hadj Diouf ci kanamu Adji waaw ne ko Adji Sarr daal koy làkk ay francais Mm-hmm. aji na ko dégguma français wax ko ci olof kon xam nga loolu mooy waxal ma tontu la mm-hmm. mu ne ko ah kon yow déggoo français mm-hmm. loolu du laaj ah déggoo français laaj la aji na ko déedéet dégguma français kon tontu na ko kon bu mu wax tontuwuma mu ne juge bindal ma ne aji saar tontu déggul français parce que aji saar moo wax ci moom moo wax ne moo bindal boppam plainte bi waaw ñu ne aji saar kon bindal ne déggul déggul déggul français ñu daal di bind ne aji saar déggul français parce que moo ko wax waaw mu dellusiwaat ne ko yow li ma la laajoon ci français léegi mooy naar bi nga da ngaa wax ne Ousmane Sonko rek moo daan ñëw Sowét Bouté peut-être couvre fa waaw mu ne mu ne ko naar bi nga waxoon ne daf laa yónnee woon ab audio ab ab message ba nga jaawale kook Sonko ba yónnee ko di Ahmed mbay naar boobu xanaa moom ñëwu fa période couvre fa aji daan ne ko non met Bamba nii la ko ko waxee yaa ma déggut. Hmm. waaye man naar bi bëccëg la daan ñëw waaye ci guddi couvre fa laay wax man. loolu deuxième tontu hmm. nu bind ko aji saar moo tontu loolu. ñu ñëw ci troisième laaj mu ne ko yow da wax ne Ousmane Sonko moo la déversé moo njëkk a sëy ak yow mm-hmm. aji ne ko waaw waaw moo ma njëkk a sëy mm-hmm. mu ne ko ah bon mu ne waaw léegi nag fii la nag la aji saar cange mm-hmm. sa waay maître euh, maître kii euh, avocat Sonko bi daal di rocc aw aw photo ci biir ay document am daal ko koy tàllal ne ko aji ndax xam nga kii aji xool photo yi gis na kii nekk ci photo bi moom xam na ko Max la tudd dëkk fii ci Liberté 6 di jaaykatu portable. Mhm. nekkoon koo xam ne daf doon génn nag aji saar. Mhm. génn bu yàgg bu diire boo xam ne dafa bari lu ci xew. Mhm. aji nag jàppoon na ne histoire boobu moom dee na. bi mu ne ko xam nga kii aji xool xam ne kii mooy maximum moom xam na ne lii moom problème la xam nga mun ta wax waaw xam naa ko. parce que ah. bu ko xamee. dinañ ko indil vidéo sax mën naa am. du ma du ma déwaale yi fi jàmbur waaye mën naa am danañ ko wan loo xam ne dana wane ne moom. waaw ba muy ñëw bu te laa wax de. Mhm. indaale wu ndaw. Mhm. ci histoire boobu bis bu waxoon ne waaw xam naa ko. Mhm. histoire kooku day dàq ne dañ koo dee verser. waaw su fekkee nee na déedéet xaw ma ko. waaw dañuy indi weneen photo ne ko waa kii lu tax ngeen lëngoo nii di di taxaw. tanga nga ne xamoo ko moo tax mënut a wax waaw mënut a wax déet mooy dal Macky Sall. mu ne du ma wax wii du ma wax non loolu noonu Adji Sarr def ne tekk daal ne nii jël ay noir firime waaw takk ko taxaw daal def nii di xalaat. takk ay noir filmé wallaay. Ah, xaaral ma xam jàllo si su hmm. ma xam jàllo ne ko eh. Hmm, soxna si mu ne ah, mu ne ko s'il te plaît doo tekki sa lunette yi. ma xam jàllo ma xam jàllo wax aji saar ne ko tekkil sa lunette yi. Hmm. tekki ko s'il te mu tekkiwaat lunette yi tegal. daan waa man man Bamba sax yow Pastef nga bokk du la wuy du ma la tontu. du ma la tontu Maître Bamba bokkul Pastef. du militant ba AP Pastef. amul carte membre musta dem meeting moom Ousmane ko dafa am problème mu ñëw engagé wu di ko mu ñëw di liggéey ak moom ci liggéeyam la nekk mais mm. comme amul lu mu wax mu ne ko Pastef nga bokk mm. yow ngay bañ a tontu avocat bu bokk Pastef te ànd ak avocat bu bokk APR mm. loolu loolu xel nangu na ko ah ngay bañ a wax ak waa waa ku bokk Pastef te yow bi nga amee problème dangaa ngaa dem wooyi militant APR na ko kaay yóbbu mu hôpital militant APR bu tudd Mamour Diallo moo lay moo lay moo lay moo lay moo lay dimbali nee waa APR sax ñoo lay defal ay conférence de presse pour pour pour wax di la xeexal sa àq ak sa yelleef mhm. ah? kon kay yow waroo am problème ku bokk Pastef ak ku bokk APR mais moom mu bëgg a jël loolu nag tudde ko ne da doon bañ a tont parce que Ousmane Sonko moo tontuwul mhm. déedéet dafa amul lu mu tont amul lu mu tontu léegi nag foofu laa koy jeexale rek waaw mooy waji Ousmane Sonko tamit jël na fa benn PV mhm. boo xam ne mooy PV El Hadj ba mu amoon ca bureau Euh, ca nda ca ca France ba mu jotee woon ak bi as ndaw soo xam ne sama benn waaye nee na ma bu ma tuddati ndaw si ndax xale la mhm. dafa ab xale bu jigéen boo xam ne dafa ko daf ko accusé woon viol a euh, euh, Sonko ne ne El Hadj ne ne ne ne juge bi histoire u El Hadj Diouf mi taxaw mhm. El Hadj Diouf dafa bokk ci dossier bi pour pour indil ma histoire bu may setal man mhm. ndax El Hadj mii dafa am histoire ak lii ñuy àtte muy viol jëlal histoire u El mii ma teg ci PV bii mooy PV bi ñu ko daanee woon France. Hmm. mu ne ko liiral El jouf Diouf mii. Hmm. jikko yi mu amee. biñ ko ah. giiñee viol. Ah. est-ce que man am naa fi benn jikko boo gis ci man. Hmm. ndaw sii giiñ El Hadj Diouf bi. xoolal ba xam moom jikko yi mu yor gis nga ci benn ci ci kii toog. ñu ne ko nan la nan la El Hadj def mu ne. El jouf Diouf lu mu néew néew. moom ah. d'accord na ne. génnee na kanamam awraam. wan ko xale bu jigéen bi ne ko xoolal. Hmm? El Hadj Diouf nangu na ko weddi wut ne moom def na loolu xale bu jigéen ba ah weddi wut ne itam doon na ko jéem a fuqarti pour pour pour tekk pour dindi tubayam waaw El Hadj nangu na ko mi ngi ci PV bi boo duggee internet léegi gis ko hmm? xam nga kon loolu Sonko defu ko te El Hadj moom nangu na loolu ah. bi ci desit mooy ndaw si lu mu néew niiw bi ñu jëlee bi tiis bi ñëwee daa jël kilootu El Hadj Diouf bi kiloot bi waaw kilootu maître El Hadj Diouf teg ko daa di dem jëli kiloot yu bari xaaral ma wax la rek xam-xam laa lay wax de. waaw man wérantewu ma ak El Hadj de xam-xam laay wax. nii damay nettali. waaw jël kilootu El Hadj Diouf teg ko. dem wut ay kiloot yu bari dajale ko teg. waaw daal di woo ndaw si. ne ko ki doon violé génneel ma tubay jim soloon fii. Hmm. ndaw si waaxu ba ca kilootu mètre bi ne ko ne ko bii la soloon waaw ne ko bii la mètre soloon mètre nag ko moom kilo kiloot bi mu ne maa moom kiloot bi ñu ne ko kon kaay. <laughs> léegi nag lii lii lii nag ah, awa. waaw yow bu bu yàqee bi waay man man wax wax ay eh, maître yi taxu maa jóg xaaral ma ñëw rek maître li ma koy li may wax rek dinaa ñëw ci moom léegi wuyu ma. yaa ko wax léegi nag <laughs> <laughs> eh, eh, kii nu mu tuddati Euh, léegi nag ndaw si mën naa bàyyi foofu sa affaire u léegi ndaw si. bàyyi foofu soo ko nee. Sonko ne Sonko ne maître ndaw sii la géñoon viol bi mu biñ biñ nee dañ koo violé bi mu ne tëll bunt bi génn lim njëkk a def mooy lan la njëkk a def mooy dafa jël portable am téléphone yaayam ne ko ah man de dañ ma doon bëgg a violé yaa ngi dégg ne ko dañ ma doon bëgg a violé léegi ma mu ne ko yow mënoon ngaa wax sa ndaw sii biñ ko violé ca jour ba mu wax ko yaayam mais waxu ko yaayam kon sa ndaw sii non mu wax ko baayam ndaw si mu ne ko ndaw si bi mu paree lum def woo ñaari xaritam wax leen ko sa ndaw sii de violé nañ ko at waxu baayam waxu ko yaayam waxu koy xaritam kon de xanaa sa mënoon ngaa wax sa client bii mu toppandoo sa ndaw sii ndax ndax ñu mën a gëm ne nañ ko violé ne ko sa ndaw sii keroog bi nga xamee ne ndaw sa nga violé France dañ koo jël yóbbu ko ci am médecin médecin bi def ne xoosi am nay xoosu xoosu ci yaramam sonn na ba pare dafa am li ñuy wax traumatisme maanaam xel mi dafa jaxasoo dafa tiit parce que nag xam nga euh, magum 60 ans nag bu bu génnee tubayam wan la ko nag war ngaa mën a tiit loolu moom dàq na mag waxuma laa gone dégg nga ma <coughs> nga daal di mu ne mu ne ko léegi nag sa ndaw sii da koy laaj ba xam moom ba mu demee ca médecin ba ndax médecin bi wax na ne dama koo xosi ndax médecin bi wax na ne koo dóor ndax médecin bi wax na ne gis nay gajj-gajj ci yaramam est-ce que médecin bi wax na ne moom dafa am traumatisme dégg nga léegi nag daal na ko te ndaw si sa ndaw si yow am na am na lu mat ñetti weer di dem di di dem di jël ay rendez ci médecin bi parce que mënultul woon nelaw ndax tiit xam naa la mu ko wan daa rëy dégg nga léegi nag yow sa ndaw si laaj ko moom kañ la gëj ci médecin bi ko doon defal prélèvement yi depuis keroog delluwaatul ci médecin ne ko man dama koo gis sax muy way ay wayu séeréeram di fecc muy way ay wayu séeréeram di fecc waaw kon donc kii moom jàpp naa ne sore naa sa ndaw si mhm. daanaka kon histoire o El mii mhm. nga xam ne man violé wu mhm. ak ndaw si yi ak El Hadj Diouf viol bi ñoom ñaar ni ñu wutee doy na sëkk ci ne Adji Sarr mi kenn violé wu léegi nag foofu laa koy tënke bi ñu génnee ci biir euh, bureau doyen de bi waaw boo ko seetloo xaw ma technicien bi dana ko mën a génn dem moo njëkk a génn waaw bi mu génnee ñemewul a wax. Adji Sarr ñëw ñemewu ñoo wax te mënuñoo romb journaliste yi dem. waaw waaw dañoo làqatu taxaw ca ginnaaw. mi ngi koy génne nii ba ba met Bamba kii mooy met Bamba. kii bi mu wax xoola El Hadj ko ne gis nga ko xam nga du avocat ko hmm. mu génnee hmm. ah, ah. ngi nii di wax mu ñëw ba ah. ci ginnaawam xam na ne gisu ko muy déglu léegi bu ñuy ne waaw na mu mën a dem feene tooy na hmm. parce que bi mu génnee moom bu ñu ko joxoon micro ah. wallaay xamul lu muy wax hmm. parce que moom dafa am def défaite spéciale parce que dañoo jël hmm, Adji saar andi ko xool ko muy niroog avocat Sonko moom nii lu muy wuti <laughs> wala daa bëgg ñuy jël ko ah. léegi <laughs> nga bi mu ñëwee mënut a wax dara waaw mi ngi nii taxaw xool waaw mi ngi euh, na ko mi ngi nii taxaw ci ginnaaw léegi avocat jàmbur di def déclaration nga ñëw déglu bi mu paree nag lay doog a am lu mu wax parce que mm. fii la mënoon a jëlee point de départ lu mu mën a waxaat mm-hmm. boo gisee ñu jógee démb ci projet bi waaw El Hadj Diouf taf taf mu dem biig ci guddi dem ci Pape Ngandiaye toog fa waaw léegi bon dinaa ñëw ci dinaa ci ñëw dem non duma ci ñëw Pape Ngandiaye toog ca ñu jël Adji Sarr mu génnee ko mu toog di wax donc da ngay xam ne ñoom bu ñu amoon la leen neex ca biir bureau de bureau doyen de sis duñ defet biñ fanaanoo mhm. gis na waar nañ leen fu ne amuñ lu ñu wax looloo tax mënatuñoo toog ñu profitoo mhm. El Hadj Diouf dem fee wut lu mu wax Adji Sarr génn fee wut lu mu wax pour ñu divertir nit ñi ba pare mhm. ñu dem jàpp Fadilou Keïta uniquement pour indiwaat beneen contrat beneen coow waaw pour pour rek buñ yamate ci waxu Adji Sarr parce que Adji Sarr bi moo ba xam li mu jëf ñii keroog kenn mënu laa wax nu mel ndax koo xam ne dangaa waxoon ne man bu kilifa diine yi yeexee ma defal sama bopp justice ne man du ma tuumaal Sonko lu toll ne viol ci ay waxi donc dégg nga donc man li ma yore waaw suñ ñëwee bu ma ko wanee Sonko mu demal boppam rëbës ñu ñëw yow indi woo fa silib bu xottiku indi woo fa succee ngorso bu xottiku indiwoo woo fa xosik xosiku indi woo fa vidéo indi fa photo amoo téléphone dara lu dul toog di ko xool naan moo ma yoole ba pare Adji Sarr démb sorteem bi nag ma may ma wax ci une minute rek sort def na sorti boo xam ne man ma ci constaté ñett. waaw mais balaa ñu ñëw ci sortie bi man c'est que dafa am Cheikh question yoo xam ne. Hmm. léegi xam nga dafa am détail yoo xam ne da nga cee dugg. Hmm. détail yooyu nag man foo ko jëlee yow foo xamee li li wax ni parce que loolu nit ñi ñi ngi ci demandé tamit. fan nga ña fa nekkoon ña fa ci bureau ba parce que tuuti moo ko la fa nekkoon ci bureau ba. neex gis ko ci kaw baa ci suuf nga ne ko ndax li ma wax du dëgg. aji saar bi may seetaan xam na ne man wax naa ko du dëgg li ma fi ma ko jëlee nag c'est pas important. Hmm. voilà mais démb damaa bëgg balaa temps bee jeex Adji Sarr. waaw dafa génn. waaw génnam bi ñett la woon mooy wane ne ne bàyyiwut kon daa jàpp ne. la mu hmm. wane waaye de siis moom borom nag yi mooy ni ma ko waxee woon xamuñu ba xam day continuer di laaj nag yi wala daa far ba nag yi. comme nee na sàcc du ma wax. waaw ah daa mel ne mu soxlaatut sàccam feeñ. waaw kon démb dafa def sorti pour wane ne man ah man kat faruma bàyyi kon démb la wane woon du waaye de siis moom bu ñu ci yemoon aji génn na ci dossier bi. waaw mu ne nee na bàyyiwuma de tey laa ci gën nekk. Mm-hmm. benn ñaareel bi ci des mooy wax na ne Ousmane Sonko xale bu ndaw bi nga daan dóor. Mhm. di ko def loolu la neex. Mhm. te doyen de sis laaj na ko ndax mas na laa dóor mu ne ko mosuma dóor. waaw mosuma saaga mosuma teg fetal. loolu moom moo ko waxoon mu ñëwaat fii naan ki nga daan dóor. Mhm. kon donc deuxième point. waaw troisième mooy nee na moom dafa yaru. ak Ousmane Sonko nee na ko da ngaa yaru. nee na loolu Sénégal gépp a ko xam ba mu des militant yi Ousmane Sonko dama yaakaar ne kon militant yi Ousmane Sonko yi kon ñooy Sénégal gépp rek kon mhm. loolu laa far yaakaar waaye moom nee na ñëpp dañoo yaakaar ne dañu xam nañ ne dafa yor ba mu des militant yi mhm. waaye moom man nag dafa am lu mu wax loo xam ne dama ko dama ko ci bëgg am lu ma ko wax mooy moom nee na euh, moom tamit mbaayam moo gën a nekk responsable Ousmane sonk waaw ma ne ko nag yow itam na nga xam ne Sénégal gépp xam nañ ne sa baay responsable la. Hmm. ba mu des yow yow yaa xamul ne sa baay responsable la. Ah bon ndax aji saar yow boo xamoon ne sa baay responsable la. Hmm. doo nekk ci kër di fa liggéeyee. Hmm. am sa baay bu nekk fee nga xam ne moom ab responsable la ba gën a nekk responsable Sonko. nga dund fa lu toll ne viol. waaw ah. woo ko wax ko ko. waaw ah. dund fa lu toll ne viol. woo baayub jàmbur. bàyyi fa sa baay. woo baayub jàmbur ne ko dañ maa violé. ànd ak ñoo xam ne bokkuñoo ak yow baay bokkuñoo ak yow najaay duñ sa dara dañ laa for ci mbedd mi mm-hmm. te nga am bàyyi te xam ne sa baay responsable la lu tax mm-hmm. woowoo sa baay nga mm-hmm. ànd ak ñoom dem ci gynécologue ñu ne la summil sa tubéy nga summi ñu jël seeni ampoule nekk ci sa kanam di def ay ay naan def nañ ko nii def nañ ko naa te sa baay kon yow yaa jàppewut sa baay responsable nga jóge fa dugg ci coow lu toll nii sa baay yëgut aji saar yaa sa baay responsable kon yow ñëpp xam nañ ne sa baay responsable la waaye yow yaa ko xamul d'accord voilà léegi nag waaw Euh, léegi Cheikh Bara mhm. léegi euh, maître El Hadj Diouf démb tamit yow la gonto <coughs> euh, dal na la ca TFM waaw xam nga foofu dafa am lu tuuti lu ma bëgg a wax mooy mën naa ko lëkkale sax ak sorti Adji bi mooy waaw wolof Njaay daf ne bokk ci coow li xam li xew a ko gën kan moo xamul li xew waaw bokk ci coow li Adji Sarr xamul li xew hmm. waaw Adji boo ko bettoon mu toog nga jox ko siwoo ne ko demal jëndal ma fii kilo porosé ci mbedd mi hmm. ñeme naa génn di wëri porosé moom naa nañ dem projet mii xamul porosé hmm. koo xam ne yow ñeme woo def interview waaw une minute ci kanamu journaliste yi bi nga koy def Gabriel mi ngi lay kobas naan la noppil bi ngay dem dañ laa xëcc mboq la yóbbu pour bañ nga wax lu ëpp mhm. démb fi mu ne woon day jàkkaarloog journaliste yi daa mujj def interview six minutes la te vingt trois heures guddi barki démb ca vingt trois heures la ko tàmbali ba démb ci vingt heures la muy doog a pare hmm. maanaam koo xam ne yow problème mu f benn interview nga am hmm. fan ngay taxaw ci kanamu juge ak ay avocat di wax hmm. boobu benn la moom dafa yaakaar ne dafa yaakaar ne moom ci projet la nekk fekk moom mooy projet bi moom aji moom moo nekk am marché gars yi di ci gagné voilà parce que moom yëgul li xew Abou Thiali Kane biñ koy engagé dañ ko ne léegi dangay ngay ñëw défendre Adji Sarr mu ne bu leen ma dugal ñu ne ko hmm. noono mu ne kon da ngeen may eggaleel sama kër gi ndax man damaa damaa damaa tàmbali kër gi te damay bëgg a nekk mag te mënut a pare gars yi ne ko waa danañ ko engagé hmm. Elas Diouf Adji Sarr laajal Elas Diouf Mercedes am bu ñuul boobu muy dawal hmm. kan kan moo ko jox Adji Sarr ci boppam mooy ab marché te yëgu gars yi dañuy ñëw di dund ci moom nekk marché bu ñuy gagné te yëgu moom daa yaakaar ne moom projet lay wax fekk moom mooy projet bi mm. moom gars yaa ngi ci projet de yaa ko yëgut léegi nag El Hadj Adji ba léegi yëgut ne abu caali mm. kan waaw abu caali kan gëmul li Adji di wax gëmu ko gëmu ko da koy weddi mm. waaw moom gëmut li Adji Sarr di wax day wax ah wóoy li kay te nag xam naa li ma la wax da koy weddi El Hadj Diouf moom daal sax El Hadj Diouf dinaa ci ñëw benn affaire mooy waaw El Adji Sarr nan nga mën a nangoo yow ak Sonko ngeen am problème. Mhm. set lettres. avocat Sonko yi déposé nañ ko ci kanamu Maham Diallo. sept lettres sept lettres. Mhm. wool ñu diw te ñoo dem Sonatel def nangam nañ def nañ woo diw mu témoin maanaam lettre bu ma sa dugg ci biir dossier bi. waaw Sonko yi ñoo ko ci dugal. waaw mhm. Adji Sarr mësul am benn lettre bu ab avocat bind jox ko Maham Diallo di ci sàkku dara. kon ñoom ni mu mel nii baax na ci ñoom mooy ñu wër télé yi di wax. Adji Sarr li ko El Hadj Diouf li ci gën a rëy. mooy toog conférence de presse. Hmm. di coow wala yor sa musuwaar di fomp. Hmm. waaw loolu daal la lay liggéeyal ak Adji Sarr mais Adji Sarr amul avocat ñi ànd ak ñëpp ci ay dóor lañ nekk te Adji Alias Diouf tamit biroom ma xam jàlloo ñu bëri dañoo yaakaar daa ragal Sonko moo tax mu noppi. Hmm. déedéet li tax mu noppi. waaw mooy Alias Diouf nga mësta gis muy xuloo ko avocat. waaw ah El Hadj Diouf làmmiñam mu rëy Pape nga Ndiaye Pape Alé Niang yaakaar ne xamoo droit. waaw ñooñu la koy jaay. mais El Hadj Diouf dafa niil ba bu gisee ay avocat day faible. ah bon Adji Sarr dafa wax benn wax bu garaaw ci biir déclaration bi. muy lan nee na bi ma dajeek Sonko Sonko dafa mel ne xaru yar. waaw li muy tontu sax mënuma koo dégg ñemewu maa xool. Mm-hmm. kon su Adji Sarr kon yow yaay violente Sonko. Mm-hmm. ndax nit moom man gis naa koñ violé ba muy am 10 ans. dem na mm. ba am 40 ans kër giñ ko violé woon sax bu fa duggee di jooy. Mm-hmm. mbedd mi ñu ko violé woon sax ñemeetu faa jaar am na ñoo xam ne góor a leen violé ñu jóge ca dootuñu wéet ak góor ci àdduna ndax dañuy yaakaar na loola la ñuy dund kon ku la mën a violé ngeen daje yow nga mel ne gay ne nekk à l'aise di belli mm-hmm. moom mu rus di sëgg aji yaa waroon a rus sonko sonko belli waaw comme nag yaa yaa belli sonko rus kon yaa koy tooñ mm-hmm. yaa dugal sa bopp nag ndax yaa ne yow da ngaa belli sonko dafa doon rus mel ne xar sonko mi mel ne gaynde bu la gisee rus ba mel ne xar kon yaa ngi koy teg lu ko naqari yow mi nga xam ne nag da yaakaar na ci soo maanaam yow sonk daf la doon violé nga dajeek moom mel ni gaynde yow mm-hmm. kon la nga koy waxal psychologiquement war na ñoo xam ne du dëgg dëgg léegi nag waaw euh, il faut que nga gaaw di seex baara temps baa ngi jeex bu dee ci affaire u El Hadj Diouf moom li may wax mooy Pape Alé waaw Pape Ngagne Pape Ngagne moom moo ma waroon a may sax droit de réponse rek pour ma mën a leeral kan mooy El Hadj Diouf mm. mais amul problème comme temps bi fii bëriwul waaye gis nga gis nga euh, El Hadj dama lay affaire mm. man ma wax waaw fenaluma la fenaluma la moom nee na man fenkat laa amul problème parce que mm. loolu da koy wax ndax moom bëggul ko ma tudd El day tudd ñëpp mais du ñemee ñemewul a jekki-jekki moom ci initiative bu boppam mu tudd ma mm-hmm. parce que damaa yor benn dossier boo xam ne saa yu ma ko ko waxeele mm-hmm. mooy dossier Sali Sali ah oui moom xam na man xam naa yàlla mm. xam na ak ñu bari xam nañ xam na ne bu ma ko dóoree fii day am problème waaye du ma ñëw ci yooyu moo tax El Hadj foo ma tudde non fenkat fenkat demal cala cala cala cala loolu lay wax hmm. ñemewumaa du weddi samay wax te ñemewumaa jékki-jékki tudd ma hmm. fi ne Pape Ngagne moo ko tooñ ah. mais gis nga dama lay wax benn affaire El Hadj Diouf affaire euh, yooyu Pape Ngagne di wax hmm. man fenu aji Adji Sarr dafa bu waxee El Hadj ne ko waaw yi du dëgg ngi lay sànq audio yi du audio wi du appel la Aji Sarr moo woo Serigne Mbaye MC Niass lam ko waxal jërul ma ciy jàll moom El Hadj su fekkee weddi na ko am na ñu bari ñu bokk Benno Bokk Yaakaar mhm. dégg nga waaw su ci amee soxla na xool kum neex wal fajiri mu woo ko mu woo ma man ma wax ko ne ko diw ak diw na fa dem ñu déglu nañ ko ñu wax ko mhm. wala mu woo ma xam jàllo ma xam jàllo bu woowee bu woowee bu woowee euh, Baye Mbaye mhm. dina ko jox vidéo appel bi mu déglu ko su paree El Hadj Diouf moom dina dégg ndax El Hadj moo wax ne Adji Sarr dafa jekk ku wéet moom boo moytuwul mën nga cee juum te moom day wéet moom Hmm. te aji saar it moo hmm. cité El Hadj Diouf ba yeboo nag El dama lay wax bul nekk fii di werante hmm. audio bi dëgg la yow xam nga ne man du ma fenkat waaw bi dëgg la El Hadj Diouf ñaar moo mën a nekk aji saar dafa fenal Sonko fenal la fenal lu ëpp fukki responsable Benno Bokk Yaakaar ak ay quelques kilifa diine fii ci réew mi waaw ne ñoom ñëpp dañuy ñëw ci këram di fa def nangam ak nangam waa El Hadj Diouf itam mën naa laa may benn permission mooy soo taxawee publiquement nga ne Cheikh Bara li El Hadj wax ci man dugal ko ma dagg ko dugal ko YouTube te soo ma koy def nag baye boo nga wax ak sa ñetteel bi ndax dégg naa moom doo nga nopp bu audio bi dugg muy muy tas hmm. waaw da ngay ñàkk sa jabar yi de waaw parce que la nga la aji saar wax ne moom nga koy def la aji saar wax ne moom nga koy def su fekkente ne loola nga koy def bu bu audio bi génnee hmm. benn mooy yow da nga yóbbu aji saar police ngeen di xulo parce que da nga naan ko yow da ngaa a fen aji lu wax lii wa ilaa nga ne ah wax na dëgg sa kër tas man moo tax ban booy wax ak man méréwu ma la dama laa yërëm parce que lii ñëw ci kanam man xam naa ko d'accord voilà Cheikh Bara nag euh, temps bi nga ne jeex na temps bi jeex na tàkk Cheikh Bara mais la nga bëggoon wax kon donc fii la ñuy parce que. waaw bëggoon na maa ñëw ci mbirum Moustarchidine yeeg euh, plainte yi ñu dugal. gis ak euh, mm, Thérèse Diouf Faye mi nga xam ne nee na yow ñu waaj ma ak yow ak soxna buy bu ñu demee Touba nga dem ci sëñ Sidi jéem a xool noo def man ma dem ci sëñ Moustapha yeddi ko nee na nañ ko am sëriñ ci réew mi. Ah. nga yedd ko te téye ko. ko ah. na na kooku na na rek lem peccam waaw waaw parce que moo ko wax de moo ne ku am sëriñ ci réew mi yeddal sa sëriñ seen sëriñ si parce que ab Macky Sall moo leen jaral seen bakkan dañ koy xeexal kon ku ko tudd daal ku bëgg daal sa sëriñ am jàmm ci réew mi waaye boo teel laa yedd nañu rek la bëggoon naa cee ñëw ba xam ñoom googu reewande fan lañ ko teg waaw temps bee ji jeex sax euh, waaw ñu koy gàttal foofu takk la jeex. Euh, bëggoon na maa wax ci Lions yi nga xam ne amuñu euh, fédération ak Lions yi nga xam ne amuñu jotug ñëw Sénégal jël si suñ drapeau bi yóbbu Qatar. waaye am nañ jotug ñëw fii di jël trente million naqari na ma ba ca kanamu yàlla. ñàkk jot moom ñàkk jot la. Hmm. tappale baaxut. d'accord waaw léegi joxal ma jox joxal programme bi mooy suba. Hmm. incha allahu taala ñu ngi tëngéej ci sëñ Mansour termini su 48. incha allah. Hmm. foofu li ñu fay def mooy hémorroïde mooy ñiy seere di am ballottement biir buy jooy ak wàllu néew kàttan yak um, booy dem toilette deret ji di génn yu mel noonu mm-hmm. ak jigéen ju mënta am doom ak ku bopp di metti affaire estomac yu mel noonu mm-hmm. boo ñëwee foofa danañ ko faj ak asthme ak gebet ak tension ak yu mel noonu ak sangat ci mm-hmm. cangaay njare yi ubbikaay bayre muslaay su dee samedi ak dimanche ñi ngi koy defee aslem 2 ginnaaw école Madieye Sall lundi mooy journée bi nga xam ne ci la ñuy faj mbirum rab bu dee da lay teree am jëkkër wala muy jaxas sa xel wala mu teree laa mën a wax wala mënoo dox wala mu lu mu la mën a def ma nga xam ne am na ñoo xam ne lu ñu dugg mu yàqu am na ñoo xam ne lu ñu yaakaar mu tas am na ñoo xam ne dañuy naqari deret duñ mën a sëy ñii di tas ñii duñ mën a am jabar yooyu yëpp rek ak ñu tëj seen wërsëg boo ñëwee ci bis bi insha allahu taala ci ba bisu altane bi danañ ko faj ci bis bi ba mu wér mais dafa nekk liggéey boo xam ne dafay jël temps hmm. boo bala ngaa ñëw da ngay téléphoné damaa bëgg a bindu ci wàllu rab Mm. ñu jox la rendez-vous lundi bi nga war a ñëw boo ñëwee ñu faj la mardi mercredi ñi ngi waat école Madieye sàll ginnaaw euh, euh, fii ci aslem lii ñuy faj ci Dakar nag yëpp am na mbuur ca wetu osan ba boo fa taxawee nga woote ci numéro mbuur bii wala nga woote ci numéro bi ñu la numéro mbuur am na Thiès kër Mbaye taxawee tamit boo wootee ci numéro bii ñu jox la numéro Thiès bi wala nga dem Touba nga woote ca numéro bii muy 78 141 55 22 wasalaam voilà jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di fàttali numéro téléphone bi di 77. Euh,